asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi chehru di weeru koor ginnaaw gàddaayug yonent bi salallaahu alayhi wa di atum 2022 cheikh muntaxa mbàkke li nga xam ne dañ bi sant yàlla bu baax am ngeen ci xaas liggéey bi na lool waaye foo mën a nekk te sa la fa sa la fa yéen sa poussé loo ko mën a loo ko ci baax baax waaye yéen da ngeen am xaas liggéey bi ndax dañu ko dañu ko sañ ko bëggee ñu tëralee ko nii yoon war koo doxee war ko dundee lépp alhamdulilah am ngeen ci xaas kon lépp ko bëgg dañu la ko yàlla suukar nan nan nan nan ñuy noonu liggéey bi lan moo fi nekk loolu nii sa liggéey bii moo jiitu liggéey bi ñuy toog doo si toog ndax looloo fi ne te yomb na leen kon jërëjëf jëf leen di sant suñu borom ñu sant sëñ bu baax a baax leen lépp pagute bo lépp maa leen sant yi ci taxawaay bi leen gërëm bu baax def leen yéen dañ dama leen di def soññ man sama bopp di ñaan itam soññ boobu mu soññ yoon bi yëpp. moom Serigne Bassirou xalif général des Mourides yàlla na fi gën a yàgg lool te gën a wér Serigne bi yee salaat ndigal ci daayira Muxaddamatul Xidma ci ni nga xam ne noonu la ñuy taxawoo weeru koor gi ci biir jumaay Tuubaa ji mu jëm ci waxtaan yu am solo yi naafila yi rawatina ndogu yi nga xam ne moom lañu waajal bés bu yàlla sàkk mboolem jullit yi nga xam ne dañuy ndogoo ci jumaa ji yéen opérateur économique yi yéen commerçant yi yéen yi nga xam ne da ngeen a bëgg a jëf baax ndax xam naa ne hmm. hmm. daayira muxaddamatul xidma dañoo yaatal liggéey bi fa yéene ko ànd képp koo xam ni jëf lu baax ñor na la rawatina ci biir weeru koor gi ci lépp loo xam ni dafa jëm ci ndogu yi nga xam ni moom la ñuy waajal mbooleem jullit yi nga xam ni dañuy ndogoo ci jumaay Tuubaa ji képp ku ci bëgg a jëf wala nga ñëw ànd ak ñoom liggéey bi mën nga jokkoo ak daayira muxaddamatul xidma wasalaamu aleykum wa rahmatulahi wa barakaatu